أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح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 إنما هي دار فناء وغرور ودار مصائبة في كل سرور عزيزها ذليل وكثيرها قليل حيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا أحمق أعمى البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب فاتركوا الغفلة فما بعد الحياة إلا الممات وما بعد الوجدان إلا الفوات وما بعد القصور إلا سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحات فما عند الله خير وأبقى ولهو الدنيا أشر وأشقى فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم انصر دينك واهلك عدوك اللهم انصر دينك واهلك عدوك اللهم انصر دينك واهلك عدوك اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد اللهم اردد عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد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

سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman Hamida. Rabbana wa hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 السلام عليكم السلام عليكم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام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 avec euh, justement l'imam. Euh, merci de me rappeler son nom encore une fois, euh, mon cher, cher Tijan Nadat. Voilà. Ibn Omar, le fils de Tcherno Mohamed Saïd, aujourd'hui, c'est lui qui a dirigé la prière et c'est là la tradition de, de Dakar. À chaque fois que la famille de Tcherno est là, on cède la place au maître et au professeur. Là, c'est la prière après le. Euh, on peut dire Amin. Amin. Il laisse la. On va dire Amin. On va dire Amin. Donc. Euh,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 إليك بين يدي ذلك كله آه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض آه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء آه. وسع كرسيه السماوات والأرض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 ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe e dendagal julɓe wiyoɓe achadu an la ilaha illallah achadu anna mouhamadou rasulullahi en gatti kadi hande ñalawma mawde tawne hawre tati lewru colte mbiyen hawre le 3 février 2023 ɗo tigui e uddital juma mawɗo ceerno alhaji mouhamadou cheikh nirouba donc ko kanko tigi hannde udditel juma makko woni ɗo ɗum hannde denndaangal julɓe wiyoɓe achadu an la ilaha illallah kañum fe ndenti ɗo denndaangal média ji ɗi kala ha tigiɗe e safina tv ɗum noon eɗen gonɗi hannde machallah en yii ko joni joni waktu o juula yimɓe ɓe keeɓi julde cilmini mbaɗi duwaw joni oɗon gandi ko daade alquran ɗe tigi goni haalede noon bandiraɓe musidɓe teddumɗe gowɗen wadde kala e saaha nde wonno eɗen gandi safina tv so haalama ceerno hamid yero ban so haalama tigi e neɗɗo wawa woppude diine o caggal ɗum noon kala no mbawɗen wadde kala e saaha hande kam kala denndaangal dendagal julɓe heɗoto men ne mbiyata amin inchallah ko ɓoyata ko ma en ettoyaade dendagal julɓe ɓe ettoɗen namdade ɓe kala e saha kadi udditkol jumangol ha ko fata hen gam tigui jaam e cellal wawa ɓeydade e nder leydi men sénégal ɗum ɗon noon ɗo e haalirde ko djibidia toon to technique eh, ko coté caméra o noon ko samba momodo suhir e toon ɗum noon allah jarama o jarama ko ɓoyata tigui ma en gartu hen مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون بالمعروف والناهون عن المنكر ألا لرؤى يأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم آه، <clears throat> تيرنو ابن عمر تيرنو آه، تي لامينو تيرنو اك تي كادوم نينا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين neena naka fekkonte ne loolu moo di cant yàlla gi lépp luñ ci def du doy ñande fof eɗen ndiya ko waɗanta en e moƴƴere makko e ɓural makko taw ko kandingol makko tan e meɗen bés bu nekk ñi ngi gis moom yàlla li ñuy defal ci mbaaxam ak ci ngëneelam ak ci yërmandeem fekk tam du sax suñu dayoo moom rek moo ñu ko kala ko haandini e jeyaaɗo makko ko on tigi haandi heen neena moom yalla nag lépp loo xam ne jagleel na ko jaamam bi dëgg dëgg jaamam boobu nag moo ci yeyoo wode ni allah enen tawaaɓe ñalawma hannde ɗooɓe e tottude o ɗoo waxtu e nduuɗoo suudu allah subhanahu wa taala eɗen njettira ɗum allah nde wonno ko kawridingol allah e meeɗen neena sant ñeel na yalla ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogalal ñi teewe bés ndiki tey ci néegu yàlla bii di ci jox farata yàlla bii ñi ngi koy santee yàlla bu baax a boox naka fekkonte ne loolu méngaleem la moom yàlla su en njëtti heen allah njettaneen heen allah won ɓe sababu haa ko way nii ko way nii su fekkente ne sant nañ yàlla ba pare nag ñi santal yàlla ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñi nekk sabab ba li ba li fi mel nii mel nii gila nguurnam ceerno men Seydi Haj Mahamad Saïd radiallahu taala anhu nii ko anniya ko wonno nii ko yidde makko wonno koye ɗum ne kadi o darino kanko e dendangal ɓe o wontuno e ɗeeɗoo golle نانا داليكو تي دوندو سونو سيرن شيخ الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه ني في ملتاي يينم لا وون تايتام بغ بغم لا وون تايتام ميبتام لا وون تايتام تخاوون ناتي موم اك نيكا يالا بوليلون ييب ونفونون جوغي كو نيالو مومو دي الله يتيني دوم فوف كو دير وني دي يتتو neena mbir mu nekk nag dafa am bësam bës bu ko yàlla yeggalee rek bës bu ko yàlla mëtalee bës boobu lay mët bës boobu lay yegg eɗo golle gila puɗɗa haa yetti oɗo ñalawma juulɗo fof dariima heen waɗii heen jawdi mum waɗii heen warñeende muɗum waɗii heen anniya muɗum moƴƴo neena liggéey bii dalee ko ñi tambaliko ba léegi julit bu nek def na ci alalam julit bu nek def na ci ñakam waye tam julit bu nek tam def na ci yeneem bu baax no allah ñaawiri lu ni gol golle de non e gol golle de allah rewni sababu koy juude alhaji makkisal mo ngam allah ardini hande leydi ndi nee na li yàlla attee nag ak li yàlla dogee li yàlla dogalee mëtuk liggéey bi ak jeexitu liggéey bi ak liggéey bi mel nii mu mel yàlla de ci ci ci ci xereñam ak ci ndogalam mi ko jaaralee ci loxo alxajji Macky sal mi nga xam ne moom la yàlla dogal mooy président de la république du Sénégal wadde hunde taw o rewnani ɗum e sababu omo jogi on hattan omo jogi kan mbawka kono kala ko waɗata jiiɗen ko omo rewna ɗum e sababu nee na nak lu nekk manna ko def fekk jaaralu ko ko ci ay sabab am na mën-mën boobu am na kattan boobu waaye nak lu bari li ñuy gis lépp lu muy def dafa am sabab yi nga xam ne fa la kay jaarale sababu o rewni ɗum koye mawɗo leydi ndi alhaji makkisal jooɗiɗo ɗo hannde no ɓernde makko ɓuuɓiri heen ni juurɓe tawaaɓe ɗo hannde ɓe e juurɓe ɓe tawaaka ɓe hay wonɓe to barzah ɓe kamɓe fof ko noon ɓerɗe maɓɓe ɓuuɓiri heen neena alhamdulillahi rabbil alamina sabab nag bi nga xam ne moom moo nekk sabab mët mët liggéey bi ba liggéey bi mel nii mu mel tay yàlla de min ka jaaralee ci son excellence président de la république alxaaji Macky Sall te yit nak ni xolam sedde ci liggéey bi julit yi fi nek ñep non la sen xol sedde ba ñi nek ci barzakh nak ñoñu tam sen xol nonu la sedde alhamdulillahi rabbil alamin neddo non aɗa yidde dum aɗa yettude dum kon non ko buri waawde yettude mako ko golle makko nee na nit nag mën nga koo bëgg sopp ko waaye tam mën nga koo sant gërëm ko waaye nag li ko gën a mën a sant ak li ko gën a mën gërëm moo di jëfam ñalawma ñalawma hannde oo hay sinno en kuccinaani njettoor e makko juulɗo ɗoo fof yiiɗee ɗoo golle anndi jokkitgol muɗum e golle mum ko e juuɗe makko allah rewni ɗum ɗoon tan yonaniimo njettoore hakkunde makko e allah e hakkunde makko e juulɗo nee na bésu tey bi doonte sax jëluñu jubluwuñu ci moom di ko gërëm di ko sant waaye bépp jullit boo xam ne teewe na fi tey gis na liggéey bii ni mu mel te mu xam ne tam moom la yàlla nekk sabab mu mottali liggéey bi ku nekk nee na loolu rek doy na ko ñaan doyna ko ngërëm doyna ko cant donte sax taxa wuñu di ka sant kono en jondintaako e ɗum enenne e ɗemngal ceerno e denndaangal moƴƴuɓe tawaaɓe ɓe gila e ceerno haa e seeremɓe muɗum eɗen eɗen jetta allah eɗen jettana mo allah eɗen mbiyamono kadi ɗeeɗo golle ko arsiɓe makko yo ɓuumo neena ñi ngi wax nag ci làmminu ceerno muy xalifa bi ceerno cheikh alaaj ahmad tijani radiallahu taala anhu moom ak ay sëriñam yi nga xam ne ñoo teewe ci bés bi tey silsilaam yi ba yegg ci cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñam yooyu yépp ñi ngi teew fii ci jotaay bi nee na ñi ngi wax ci làmminu Ceerno ak ci làmminu sëriñam yooyu di di wax ne liggéey bii nga xam ne mel na nii te yàlla e, jaarale ko ci loxoom nee na loolu wërsëg la bu ko yàlla wërsëkale nee na nit ki nag wërsëg bi nga xam ne moom la la yàlla wërsëkale li pulaar di wax yoo buubane na la seddal yaa ko yayoo lillahi rabbil alamina en jiiɗa junnude jonde nde kono kadi ne wonno fursa o allah hoddiri jooɗama jonde hande nde eɗen gandi ceerno men ceerno abdoul asis ceerno e gurdam makko no darori no e ɗeɗo golle e yidde yo ɗum waani kono allah hoddiri kono hoddiriri ni en jijitta siftordemo idowanademo kankone e, e nena e sant ñalna yallah bëggu ñu guddal wax bi waaye nag naka fekkontene occasion bi yombul suñu sëriñ Ceerno Abdul Aziz Ceerno radiyallahu taala anhu ku nekk xam na taxawaayam na mu meloon ci liggéey bi ak yéeneem na mu meloon ci liggéey bii ak ngëm-ngëmam ak pas-pasam na mu meloon ci liggéey bi ak ni mu bëggoon liggéey bi baax liggéey bi mët moom tam duñ ko ci ñàkk fàtteliku ci bés bi ñaanal ko yàlla moom tam yàlla na ko yàlla fa yiw Alaaji Mbàkke Sàll ne Ceerno e dental ngal fof ina duwanomo nde allah waɗantamo kisal waɗanamo deyaƴre ko yiɗi e leydi he ko nde allah waɗantamo ɗum nde wonno goto fof ina andi o yiɗi e leydi he tan ko moƴƴere o yiɗi hen ko deƴre o yiɗi hen ko kawral o yiɗi hen ko ɓamtare o yiɗi hen ko yo leydi ndi yaaru yesso nena moom alhaji makkisal nak ceerno ak mboolo mi yeb ñingi dajalo di ka ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla defal sutura yàlla na ko yàlla tam yokkal teraanga nee na yéene bu baax bi nga xam ne tam am na ko ci réew mi yàlla na ko ko yàlla mëtalal naka fekkonte ne ku nekk xam na ne li mu bëgg ci réew mi ak yéeneem ci réew mi mooy jàmm ak yiiw ak mbaax ak yëkkatiku ak réew mi jam kanam yàlla na ko yàlla defal loolu ceerno etaniraɓe chekhtu diagne mam ɗo ɓe dendangal moƴƴuɓe wonɓe ɗo kamɓe fof eɓe ndenda eɓe nduwo eɓe nduwano ceernone kadi radiallahu taala anhum eɗen nganndi hannde ɓernde makko ɓuuɓi ɗo ɓernde makko ɓuuɓi ɗo yo duwo so duwima allah jaaboto enen neɗo meɗen ɗo eɗen ɗo yo allah juutno nguurdam makko yo allah rokkumo cellal yo allah rokkumo sembe yo allah waɗ en almuɓɓe heɗotoɓe jaɓoɓe nanoɓe gollira ɗofto naftoro neena ceerno ak sëriñam yi fi teew yépp ba egg ci cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu ak sëtu cheikh tijaani radiallahu taala anhu yi fi teew yépp nee na ñoom ñépp ñu ngi dajaloo di ñaanal ceerno yàlla na ko yàlla may fan wu gudd naka fekkonte ne ñun ñëpp xam nañ ne moom Thierno tey xolam sedd na ci ni liggéey bi mel ni xolam seddee xolu jullit yi itam nu ñu seddee ñu ngi kay sàkku ñaan na ñaanal président ñaanal jullit yi yëpp ñaanal njaboot gi yëpp waaye ñun tam ci suñu bopp tam ni suñu xol seddee ñi ngi kay ñaanal yàlla na ko yàlla may wér yàlla guddal fanam yàlla may ko kàttan yàlla yàggal ko suñu kanam ñu ni tam yàlla def ñu ñi di ay taalube yoo xam ne yuy dëgg déggu ndigal di jëfe lépp loo xam ne di di digal nañ leen ko di dëkklu di defee ko di defee ni leen ko digalee ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla defal noonu de woode ni allah juulɓe ɓee fof nootitiima moƴƴuɓe fof ngari ginnaaɗo emo innaaka fof allah kam ina anndi ɗum ina anndi ɗum to hoore mum ko kañum soggi ɗum addi ɗum ndartude nde ɗo moƴƴere e tawede nde ɗo moƴƴere allah ma moƴƴanmo e tawegol makko ngol hay sinno inde makko haalaka saabu goto fof ina andi wonde koye nder ɗum ɗo woni nena santanak ñelna yallah kilifay rewmi yeb teewe nañ fi tay kilifay aada yeb kilifa diinay rewmi yeb teewe nañ fi tay kilifay aada yitam yeb teewe nañ fi tayi ñi ñi jot a tudd seen tur ak ñi ñu tudd seen tur yépp yàlla dogal na ñoom ñépp naka fekkonte ne yàlla moo leen wommat moo leen indi teewal lan fii yàlla jooju nag yëg na leen te xam na leen te yëgal na leen tam ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñépp tam yàlla na leen yàlla fay yiw yàlla fay leen mbaax yàlla fay leen teraanga اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تيرنو الحمد لله رب العالمين تيرنو نينا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ceerno wii sharifaaɓe ɓe taaniraaɓe nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e taaniraaɓe cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu e ceerno madanatal e denndaangal ɓesngu seydna cheikh oumar alfouti radiallahu taala anhu ko noonne kadi ceerno sérigne babacar abdoul asise addabbar radiallahu taala anhu kankone omo ɗo e lomtaade denndaangal ɓesngu seydil haaji malik si radiallahu taala anhu e seeremɓe ceerno fo fof ko noonne kadi ɓesngu cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu ɓenne kadi ina tawtoraa ɗo e jonde hee e denndaangal noon ɓesnguuji diine gonɗi e ndeer leydi hee fof gila e kawlak haa e ñaseen ha e canaba ha fofof fuuta e fofof denndaangal ɓesnguuji diine ɗi fofof mo haqqille tawni haalde heen emo haqqille tawnaani haalde heen kamɓe fofof eɓe ɗo e ndeer dental hee ceerno wii ina salmina on onon fofof ceerno neena ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu tam njabootu cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu bi fi teew ak njabootu yonante sallallahu alayhi wa sallam bi fi teew ak mbooloom kilifa diine ñi nga xam ne ñoo fi teew ñi nga xam ne ay sëriñam nañ moom ceerno moo di njabootu sayidna cheikh omar al fouti radiallahu taala anhu ñoom ñëpp ñi ngi fi teew naka noonu tam njabootu sayid alhaaj malik si radiallahu taala anhu ñoom tam ñi ngi fi teew naka nonu njabootu cheikh ahmad bamba radiyallahu taala anhu ak mbolom njabootu njabootu diine ji nek ci sénégal yeb kaoulak tianaba ak njaasaan ak fu nek fépp fu kilifa diine nek rek ñom ñep tay tew nañ fi cierno neena mi ngi leen di nuyu ñom ñep نعم نعم اللي تمور تبني النبي صلى الله عليه وسلم تبني النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أه، تير نوي الحمد لله رب العالمين ووينده ونو الله تبارك وتعالى كانكو تمكو هونده فوفوف o waɗino ɗum haa gasi o ñaawiino ɗum haa gasi kadi ne o hoddirii ɗum haa gasi gila hay huunde wonaani heddii noon o rewna ɗum e nokkuuji e sababuyeeji ɗo o rewni ɗum ina yiiloo ina yaha haa yettoo e nokku no ñaawirnoo ɗum e no hoddirirnoo ɗum e no waɗirnoo ɗum ni tawa fofof noon o waɗiri ɗum ko teddinirde ɗum leñol nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sabi ko kanko wii inna nahnu nazzalna dicra wa inna lahu la hafiduna o wii kanko allah o tiinnii o teentinii wonde ko kanko jippini alqur'ana kanko kadi waɗi addi l'islam kanko kadi tagi jiyaaɓe makko ɓe ena ngona e nder alqur'ana ena gona e nder l'islam hono no yiɗiri o yamiriri ni o wii kadi wonde ko kanko rendini fo fof o reeni o wii o haali e aaya goɗɗo ne kadi wallahu halaqakum wa ma tamaluna allah ko kanko tagi on o tagdi e o tagdi e mon kadi kala ko oɗon golla o haali e aaya goɗɗo ne kadi o wii yuhibbuhum wa yuhibbunahu kanko allah omo yiɗa ɓe kamɓe jiyaaɓe makko ɓe giɗgol makko ngol yettooɓe oon sahaa ara e maɓɓe ɗoon rewa e, e, kamɓene kadi ngol waawa rewde ummorraade e maɓɓe yettoyoo mo o wii ɗum ɗo fof noon ko allah ko ñaawnooɗo ɗum o waɗiino ɗum haa gasi so waktu peeñgol muɗum yontii noon o feññina ɗum no muuyirnoo e no ñaawirnoo nii neena neena yallah tabaraka wa taala lepp loo gis mom yallah balaa mudon sakk dara lu nekk na mu nar a mel ak na muy mel atte woon na ko ba dogaloon na ko ba pare defoon na ko ba pare li des nag mu am fum ko jaarale di wër di jaar ci ay nammeelam ci ay jëfam di dem di dem di dem ba egg ci jamono joo xam ne ci foofu la waxoon na mbir mi feeñ bu boobaa mbir mi daa di feeñ yàlla defee ko nag ngir teralee ko lislaam naka fekkonte ne nee na yàlla moo wax ci alquran ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafiduuna nee na man yàlla maa wàcce alquran maa tam indi lislaam maa sàkk tam sama jaamu yàlla yi nga xam ne dinañ nekk ci biir lislaam di nekk ci biir alquran ni ma ko bëggee man yàlla ak ni ma ko digalee moom yàlla tam mu ne ñooñu ñépp nag man maa leen dajale wottu leen sàmm leen mu wax ci beneen aayatam ne wallahu xalaqakum wa maa taamaluuna moom yàlla moom moo leen sàkk waaye tam sàkkaale ci yéen lépp loo leen nar jëf ak loo leen nar a liggéey moom moo ci yéen mu wax ci beneen aayatam ne yuhibbuhum wa yuhibbuunahu nee na jaamu yàlla yi yi nga xam ne dañuy góorgóorlu di bëgg yàlla di góorgóorlu di def lu baax di góorgóorlu di jem lu baax neena mbëggeelu yàlla moo njëkk a jiitu ci ñoom yàlla moo leen bëgg bi mu leen bëggee mbëggeelu yàlla bi egg ci ñoom bu boobaa ñi mën a am yoon fu ñu jaar di bëgg yàlla ba di def lu baax nee na loolu nag ñu ngi koy santee yàlla o haaliina kadi kanko allah tabaraka wa taala wa yaxluqu maa laa taalamuuna nee na moom yàlla tam mu wax ci beneen aaya tabaraka wa taala niima o waɗaniima neema ya yettir allah yewtude neema on e haaltude neema on julɓe ɓe fof nana nee na moom yàlla tam mu wax ci beneen aaya ne wa amma bi nicmati rabbika fa haddis mooy su la yàlla defalee xéewal su la yàlla defalee mbaax na nga santee yàlla wax xéewal bi nettali ko ba ñëpp dégg ko heewi tagooji no feewi no feewi ko noon dañum nenaaɗo allah sallam ɓe jettiri allah ردين إلى نبينا الله صلى الله عليه وسلم وحرجين كده وندي المشتين رضي الله تعالى عنه وي الله إن هيوي تقوج نفيوي كنا نون إن جتي الله يكو الله هوري ديني إن ود إن إلى نبينا الله صلى الله عليه وسلم تشغل أمنا كدي وبيدني إن مجري إبرال o hawridini en ne kadi wadde en almuɓɓe cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu neena yàlla bëri na ay mbindeef lool waaye ñun nag ñi ngi sante yàlla bi ñu yàlla baaxee ci biir mbindeefam yi mu def ñu ñi di xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena na loolu baaxe bi ñu yàlla baaxe la ci biir mbaax googu tam mu yokkal ñu ci mbaax defuñu tam ñi di ay taalube cheikhana ahmada tijaani radiallahu taala anhu nee na loolu de ñu ngi koy sante yàlla cheikhana tijaani radiallahu taala kono kañum aarnani laawol tijaani radiallahu taala anhu kono naa allah sallam aarnani wadde hakkunde hakkunde mi allah hakkunde nanaaɗo allah e allah sabu yiddema lañama ko e yurmaade ɓe e jingande ɓe kono anni ɓillahu sertiya radiallahu taala anhu waɗi hen kadi fayiduji ɗiɗi no gandirɗen ni ko yettude allah haalata ɗum no gandirɗen ni fayidu goto o fewji e sertiya radiallahu taala anhu jonnon yimɓe kala ko ɓooye mumen kamɓe ɓe jogoto sifa waylade hen e waddi hen fayidu ɗimmo e nder lawol hen so waktu mum yontoyi on kadi feeña feeña ɓenne yettode woodani allah enen noon e, enen foof enen gandi no mbaɗen ni wona ene mbayno ko lawol sertidia waɗi hen ni اندر شفا ان الله ان شاء الله شيخنا احمد تجاني رضي الله تعالى عنه كانكو وانا كانكو ارندني تو مكو ودلا والشيخنا احمد تجاني رضي الله تعالى عنه الله كنلاد الله صلى الله عليه وسلم ko kañum jogii haaju to hakkunde mum e e to hakkunde allah e mum haaju heɓɓitaade leñol makko sabi yurmaade ɓe e yiɗde ɓe e jinngande ɓe o waɗani ɓe ɗoon ɗo laawol cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ndeen o waɗiingol ne kadi o waɗi e ndeer laawol he fayduuji ɗiɗi hono baanjale ɗiɗi waññande arwaniire nde feeñdi e cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu nde wonnoo aduna noon kala ko ɓooyi yimɓe ɓee to sifa mumen ma njogo e huunde hee yejjidde walla yejjikinaade walla welsindaade walla welsikinaade o wiino kadi so tawii yimɓe ɓee njehii haa mbayii noon o adda kadi faydu ɗimmo waanjande ɗimmiire e ndeer laawol cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu o wii enen noon enen fofof fof gooto e men fof ina anndi no mbaaɗen ɗoo nii wonaa enen ala ko faydu laawol cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu de waɗi en ni kañum ne kadi waɗani en ni e ceerno neena alhamdulillahi rabbil alamina moom cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu du moom de du moom moo gaaral boppam def wirdu cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu neena na déedéet yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo am yitte moo am aajo digantem ak yàlla ak digante yàlla ak mom mu am aajo wollu xeetam bi ak xettali xeetam bi ngir nag sopp bi mu sopp xeetam ak cofeel bi mu am ci ci xeetam bi ak yërmande bi mu am ci xeetam bi ak sotal bi mu sotal xeetam bi loolu moo tax mu defal leen tariqa cheikhna ahmad tijaani radiallahu taala anhu ci biir loolu tam mu def ci tariqa bi ñaari faydu ñaari baawaan faydu bu jiitu bi baawaan bi jiitu bi feeñandoo ak cheikhana ahmada tijaani radiallahu taala anhu moo tax ci jamonoom diine bi yeesaat rafet taaru naka fekkonte ne nag àdduna lu yàgg rekk nit ñi ci seen bopp kam mën nañu am ci mbir mi soppeeku ak soppi mën nañ ci am tam fàtte ak fàtte te ak ak ak mel ni kuy fàtte su loolu amee tam mu indi beneen faydu beneen baawaan ci biir tariqa cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu mu ne nag ñun nii ñi mel melo wii soo ko gis ku nekk ci ñun xam na boppam xam na digganteem ak yàlla xam na tam digganteem ak boppam waaye ñii ñi mel ku nekk ci ñun xam na ne du ñun ci suñu bopp waaye faydu baawaanu ña faydu ñaareel bu cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu moo ñu def ñii ñi mel moo ñu defal tam ñii ñi mel nee na nag ñu ngi sant yàlla ci loolu ala kulli haalin alhamdulillahi rabbil alamin haala yitni tan kam ɗo yaltude e juuɗe dental ngal allah walli ceerno jogi han niya ewa suudu allah ndu golle ha moƴƴa jaɓal ɗo e ndo hen allah jogi han niya keeriɗo juma madina wuli ko madinnaɓe tan yo ngollu sona tan ma allah yantini hen ewa juma dakar noon kala julɗo jeɗaɗo yo yan foof julɗo foof ami yani e, moƴƴer wondi hen wonno goto fo ko allah rokki ɗum e stéphane allah rokkiɗ ɗum juma madina o noon andino oka juma waɗi ɗum i allah noon waɗi juma o golle mum puɗɗama ha wayno ha wayno wayno wanoni ngal gui allah nan ɗon ko arjiƴe wona jooɗin buuni te ko ni allah muuno yowa te kadi allah hawdinno hen ko <laughs> maccuɗallo allah hawdinno yo yo hawru e yeɗede wuni o ɗum woni sababu wanno adan ko firta watta ɗum ɗo e ardi ima e ko hajji makkital président mo allah leydi ndi en jetti allah tala e sedi sertidan en jetti ceerno e seere makko en jettima kankone moƴƴi en jetti julɓe fofoof en ñaagi julɓe fo noon yaafuya e duwaw alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin kala ko aduna ki heɓo ko aduna kan wawa heɓade ewa haalmani sa nani damiɗa to wona allah loki allah kam ko lokki fof heeɓima tan ewa alhamdulillah rabbil alamin jetti allah en beltima no moƴƴi ɗum ko allah yetti no keeri ɓe estifa keeri ɗum alhamdulillah rabbil alamin te kadi ko saha il islam saha il islam saha il islam e الله يكون مون يأتوا على الإنسان مسلم جامن جافر تيرنوي الحمد لله رب العالمين وبي الحمد لله رب العالمين نويراني كونون ها الله يتيني قال دو دينيرال هبا تيرنو شيخ الحاج محمد سعيد رضي الله تعالى عنه جوغي اماغال اني كيريدو holɗum yo julɓe ɓe ndendata ɗo ina ndewa allah ina totta ɗo farillaji mumen ina mbadda ɗo wadifaji mum en o jogii on anniya kadi ko anniya keeriiɗo hakkunde makko e allah anniya keeriiɗo hakkunde makko e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam anniya keeriiɗo hakkunde makko e cheikhna ahmada tidiani radiallahu taala anhu anniya keeriiɗo hakkunde makko e seeramɓe makko ridwanullahi taala alayhim jamian golle ɗe naatana ina golle huunde fof fof gollaama heen haa ko gollanoo adan ko yettii e nokku tawa allah waɗi ɗum ko maa ittee o wii wonaa noon jawdi ina boni ala kala ko ɓe ngolluno heen allah yoɓiiɓe haa timmi kono tawi no wayɗo hannde ni ko ni woni no allah muuyiri tawane kadi allah muuyi timmugol golle ɗe haa waya ni ko hono président de la république al hajji makky sall ko kanko allah rokki oon wune kanko allah rokki kadi on arjiɗe ceerno wi ɗum ɗon noon ko arjiɗe makko mo allah rokki mo kadi ko wune mo allah waɗani mo o wi sa nani ndaami yiɗa tawan wona allah waɗan ma kala ko allah waɗanma ɗum a o wi kala ko allah rokki heɓoto kanko noon ko allah rokkimo ɗum noon yo allah rokkumo fandinde e bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e ceerno wi seeranɓe ɓe noon jaafo no feewi e e ko ɓamti konngol e maɓɓe ko omo ñaagi heen yaafuya ceerno neena alhamdulillahi rabbil alamina ni mu ko waxee ci faydu ñaareel bu cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ba yàlla dogal béréb bii yàlla tàbbil ko ci loxo ceerno cheikh alhaaj mouhamad saïd radiallahu taala anhu mu am ci béréb bi nag yéene boo xam ne bu jagle la yéene bu jagle digganteem ak yàlla yéene bu jagle digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yéene bu jagle digganteem ak cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu ak yéene bu jagle digganteem ak sëriñam bu fas yéene béréb bi nekk bérébu jaamukaayu yàlla ñi fiy joxe farata yàlla di fi def wadifa di fi def xadratul jumaa di fi waxtaan lislaam nee na nag fekkonte ni lii nii mu mel nii lii sha'airul islaam la teraangay lislaam la luy feeñ luy feeñal màndargay lislaam na nee na loolu nag lu rëy la fa yàlla yàlla dogal bi ceer na amee yéene boobu jaamu yàlla yu nekk def ci seen alal def ci seen doole def ci seen yéene def ci seen taxawaay def ci seen ñaq liggéey bi di dem di dem di dem di dem di dem ba am na lu fi taxawoon yàlla dogal ne loolu mbir mi laaj na ñu dindi ko nee na li ñu dindi woon nag du caageenu alal bu yàqu la déedéet képp koo xam ne defoon na ci dërëmam yàlla dina ko fay ba mu mat sëkk waaye nag dafa fekkente ne nii mel tey ci asal lii la yàlla nammee nii lay mel te yàlla tam namm dogal suy jeex tam yàlla mi ngi jaaral jeexa njeexital bi ci loxo président de la république alxaji Macky Sall nee na ndam loolu ak wërsëg boobu moom la ko yàlla wërsëkale nee na loolu nag wërsëkam la te itam ndamam la naka fekkonte ne ñiy wax pulaar dañu naan yi yiɗaa tawan wana allarakkuma nee na am bëgguma nee na dafa fekk ne du yàlla moo la may waaye yàlla kay su la mayee da ngay jël nee na lii nag wërsëg bu ko yàlla jox la yàlla na ko yàlla na ko yàlla muurlu nee na mi ngi jéggalu nag kilifa yi fi toog yépp ci wax ji mi mi ngi leen di sàkku ñaan di leen sàkku tam jéggal haji aliyu sow yalla yo moƴƴa kanko no juma madina gunaɗe jottini golle tan kita kanko jogii golle ha kaɗo juma kadi ne golli hen ha ha joni gollol makko ene e nder hen o wiide wonno yettode wodani allah no wiiruno adan ni o wi ceerno cheikh alhaji mouhamad saïd radiallahu taala anhu juma madina gunas ka nde o darnataka o anniyi golle makka koyo yaltu e warñeede madina gunas naaɓe hoɗɓe madina gunas faggudu maɓɓe gila e remru maɓɓe haa e ngaynaaka maɓɓe haa e commerce maɓɓe kala heen huunde ko ɓe dañi so ɓe njaltini asakal ngal ko heddi ko sappo ɓal ngal ɓe njaltina ɗum gollire juma ka so wonaa noon jiyaaɗo allah goɗɗo mo allah addi yo gollu yo wat heen huunde on noon bisimilla muɗum wa amma jumadakaru o noon o anniyi e makka ko dendangal juulɓe fof fof ko dental ngal fof o anniyi yo gollu juulɓe fof kadi o anniyi yo gollu o wi ko on anniya wonno ɗum waɗi alhaji aliou sow aliou arɗa sadio kanko ne allah waɗi jumamadina ka kanko ne ko kanko jokkitnoka hay ka ɗo jumane kadi golle makko tiɗɗe ina heen fofof kamɓe fofof yo allah yoɓɓe moƴƴere

ko tokki allah e makko alhamdulillah rabbi alamin amma be ñimete rabbi ko fa haddi alhamdulillah rabbi alamin allahumma salli ala salimanu salli ceerno wi so tawi ko goonga allah haalete kanko président makisal gila allah addimo e leydi he ko golli e leydi he ko gooto fof fawi heen yitere muɗum tato adiɓe mo ɓe salamu aleykum deƴen seeɗa tato adiɓe mo ɓe gooto fof golli e leydi he fodde ko allah ñaawi yo gollu e kadi ko allah haanño yo gollu e fodde tiinaare mum e darde mum kono kanko e ndeer ɗiiɗoo duuɓi ko golli e leydi hee ko e ko golli e ɗiiɗoo duuɓi o wii ɗum gooto fof yi'ii ɗum anndii ɗum kadi ne faamii ɗum ɗum noon ko arsigue makko mo allah rokki mo ɗum noon allah wii wa amma bi nicmati rabbika fa haddis so tawii won neema mo allah waɗan ma yaa yettir allah yeewtude neema o e jangtaade neema o Ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamina su fekkente ne kay dëgg yàlla na ñuy wax su fekkente ne dëgg yàlla na ñuy wax ku nekk xam na moom président Macky Sall yàlla dogal na liggéey na ci réew mi lu rëy liggéey bu bëri nee na ñett président yi ko fi jiitu yëpp ku nekk ci ñoom jëf na ci réew mi kemtalaay kàttanam def na tam la mu mënoon def na ci réew mi tam lépp loo xam ne doon na yéenam waaye moom tam ku nekk ci ñun gis nañ bi bi ko yàlla indee lu ko yàlla defal ak lam fi def nee na loolu nag ñu ngi koy ñu ngi ko ciy santal yàlla nee na yàlla nag moo wax ne wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis su fekkente ne moom yàlla am na xéewal bu mu la xéewalee na nga santee yàlla nettali xéewal bi ak wax xéewal bi allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جتول غودني جوميران بودو سلمنا تيرن امتي جان خليفه خليفه من بودو سلمنا اخل بيت رسول سيرام من جودي بدو سي فابي بودو سلمنا تيرن مدان نستال جودي دو غالي تيرن من شيخ مرو فوتي وتال e jooɗaniiɓe galle sidih malik sy e jooɗaniiɓe ɗo galle cheikh ahmadou bamba e kala galleeji diine e ndeer sénégal galleeji diine caggal sénégal ɗo haa fas ɗo haa algérie kamɓe fof seremɓe men jewtiiɓe cheikh ahmad tijane sharif radiallahu taala anhu eɓe calmina e banndiraaɓe juulɓe tedduɓe tawaɓe oɗo ñalawma hannde oɗo yettana ɓe ceerno eɗen jettana allah ceerno sabu mboɗo anndi ko anniya mawɗo wonno e makko caggal nde keɓmi leydi ndi nde min jooɗi ɗo o hollino kam yidde makko jokkude anniya ceerno jean mamadou seydo radiallahu taala anu ɗum noon mataw ko allah walli kam toon ko ballal allah wona jambaragal ko ballal allah allah rokkumi tuuya wallude diine o e daranade diine o sabu mboɗo andi diine ko woni heen e tampere ko jogiiɓe ɗum ɓe kono ndewi joomiraɗo tan toppitaki hay koye mumen toppitaki ɓesgu uji mumen kono noon ko naadata e golle e jawdi alay e sago ɓe ɓamde heen ɓe darane heen ɗum woni muujibo darnumi oɗo programme président de la république e hoore mum e jawdi leydi ndi e ko mbaɗanmi heen sahaaji saha e saha e posam mi walla diine diine l'islam kono hay diine chrétien mboɗo walla ɗumen sabu so tawiden heddi koye julɓe ɓe walla dewoɓe allah ɓe kamɓe jeyaɓe ɓe so heddima tan e mumen golle ɗe ne mbawi juurde ne mbawi musde ko ɗum woni muujuba ko mbaɗanmi jumaji e jamaji e nder sénégal ɗum noon mboɗo yetto hen allah no feewi mboɗo yetto kadi allah e no rokkiri kam tawtoreɗen hande enen foof oɗo juma no gasiri ni ha julɗen ɗo hande aljuma mboɗo ñaagui yo rok kam tawtoreɗen enen foof so juma ceerno maɗani juma cheikh omarul fouti paris e jumaaji goɗɗi e goɗɗi puɗɗaaɗi allah rokken no ɗum fof jokkira pour gaynude noon golle mi addanimo hannde titre foncier juma o woni no baayi baayi noon ko laamu luɓatma tan leydi kono hannde leydi ndi wattaama e fondation o madino dental ko dental ceerno dental madino gounance ɗum woni titre foncier o on jiɗmi fawde e ñaagaade tan duwaawa fulaasa haala makko kaa hadi am nan tudde fulaasa haala makko kaa o wii ko omo yetta allah omo yettanmaa allah sabi omo anndi anniya maaɗa no fonnoo mawnude e kaa ɗuuji maaɗa e anniya maaɗa no foti mawnude haalanɗamo juma ka sona nden haqqille makko ina heen ɗum noon o rewni haa o holli ɗum ɗum ɗo noon ko titre conseiller juma ka ko mbawi wonno kono wacci ɗum rindude ma ƴettanonagam seremde ɗum gallen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mon président nee na moom jotaayam tey fii jotaayu sant yàlla la nee na mi ngi sant yàlla bu baax a baax di santal ceerno cheikh alhaaj ahmad tijaani ba mu cheikh alhaaj mouhamad saïd radiallahu taala anhu ak ay sëriñam nee na mi ngi leen di santal yàlla bu baax a baax ci bés bii nee na mi ngi santal yàlla tam ceerno neena xamna mom na yittem ak yéeneem bi mu amoon ci jumaaji ta xamne jumaaji dafa di yene Cheikh Alhaaj mohammed Saïd radiyallahu taala anhu ta mom tam mu xam Thierno yene Cheikh Alhaaj mohammed Saïd nu mu tollu ci Thierno ak nu mu rëyee ci Thierno ba bi yàlla tege tegee mi ci loxom ñëw na fii nuyu Thierno fekk ci baraag bi fii keroog fa la jullee timis fa la jullee gee Ceerno wax ko mbiru jumaa ji depuis boobu nag xelam mi ngi ci te depuis yàlla teg ko ci réew mi moom xelam dafa nekk ci lislaam te xam na ne nitu yàlla yi ñi nekk ci biir lislaam ñoom ñi ngi liggéey lislaam rek liggéeyee ko ngir yàlla seen coona ak seen alal ak seen lépp dañ ko jox lislaam moo tax bàyyiwuñu xel sax ci seen bopp bàyyiwuñu xel sax ci seen njaboot yépp lislaam nañ fa jox ba loolu tax na léeg-léeg sax am na yenn liggéey yoo xam ne yu alal laaj ñoom duñ ko mën a def ndax seen mbir yépp dañ ko jox yàlla ci boobu nag la xalaat ci gouvernement bi mu def programme bii nga xam ne dafay dugal loxoom di dimbali ci mbooloom bérébi diine yi diine lislaam bi ak même diine chrétien bi sax def na ci ay taxawaay naka fekkonte ni ñëpp ñoo bokk réew mi nee na yàlla def mu def programme boobu yàlla programme boobu nag mu ci def alalu réew mi ngir liggéeyal lislaam léeg sax mu jël si alalu boppam def ci loolu yëpp nag ngir wuutu boppam ak wuuru réew mi yëpp ci liggéeyal lislaam ba yàlla dogal nag nii yàlla dogalee liggéey bi itam mu tàmbalee ko nii mu ko mu tàmbalee ko ni mu ko tàmbalee ba jeexale ko ni mu ko jeexalee nee na du ngóoram de du njàmbaaram dii def yàlla rek ci mbaaxam ak ci yërmandeem moo ko wom def loo ko loolu kon nag mi ngi sant yàlla waaye di santal yàlla kilifa diine yi yëpp nee na nag mi ngi sant Ceerno bu baax a baax di sant Ceerno Madani Tall mi fi nekk teewal fi njabootu Cheikh Umar yëpp di sant tam Serigne mbay si Abdoul Aziz Dabbar teewal fi njabootu Seydil Hadj Malick yëpp ceerno cheikh ahmad tidiane baro teewal fi njabootu cheikh alhaaj ahmad baro yëpp radiallahu taala anhu ak mbooloom sëriñ yi fi teew yëpp ku mu tudd turam ak ku mu tuddul turam mujj jiital nag njabootu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootu cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala anhu président nee na ñoom ñëpp mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm tam bu baax a baax di leen jox seen wàccukaay tam bu baax a baax di leen ziyaara di leen sàkku ñaan nee na mi ngi sant nag mbooloo jullit yi fi teew yépp mi ngi leen di sant nee na ginnaaw loolu nag bokk na tam ci teraanga boo xam ne indi na ko teralee ko ceerno teralee ko mbooloo bi teralee ko umma islaamiya bi yep moo di ju jumaa ji bàyyi la woon bàyyi nag état moo koy abal nit ki nit ki di ko jëfandikoo waaye nag joxe na ndigal service am yépp nañ ko defal titre foncier titre foncier bi nag bés ndëkki tey jimaa jumaa ji nekk na titre foncier boo xam ne toog na ko ci loxo Ceerno ak mbooloo mi mu def ko nag ngir teralee ko lislaam ak teralee ko jullit yi yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim concrétiser la volonté de toute une communauté aujourd'hui c'est l'aboutissement d'un long processus quel est votre sentiment c'est un sentiment de fierté gratitude également, puisqu'en réalité, j'ai pris conscience très tôt que l'État doit accompagner la religion, le culte. je le fais pour euh, toutes les religions, tous les cultes, évidemment en fonction des moyens disponibles, puisque si nous laissons la construction d'ouvrages aussi importants aux seuls efforts des fidèles, évidemment ça prendrait beaucoup de temps. C'est d'ailleurs le cas ici. mosquée a été obtenue depuis 1962. Et ce n'est qu'en 82 qu'ils ont commencé vraiment avec euh, euh d'abord. Abdelaziz Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dans son paradis, C'est les deux, nous prions également pour qu'Allah l'a en son paradis, qui ont lancé avec l'actuel calife les travaux de la mosquée. Alors, les travaux de la mosquée. Et donc, euh, il a fallu, à partir de 2017, qu'on puisse prendre en main, dans le cadre du programme de construction de sites religieux et des cités religieuses, que j'ai pu terminer cette mosquée. Et comme j'ai entamé beaucoup d'autres mosquées dans le pays, nous à Saint-Louis, nous avons déjà réceptionné Tambacounda, Kolda, euh, j'ai engagé Pikin à être réceptionné Et nous avons des chantiers à Saint-Louis, à Kaolac qui va démarrer et dans d'autres localités. Donc je pense que tout cela fait partie de l'ambition que nous avons également en soutien à la religion occulte. D'ailleurs, la semaine prochaine, je m'arrêterai aussi à Popanguine pour voir euh, les travaux du centre marial de Popanguine qu'il s'agit d'appuyer toutes les religions, comme je l'ai dit, et ça fait partie bien sûr euh, du bilan de notre, activité, de notre action à la tête de l'État. Donc sur le titre foncier que vous avez remis justement au Oui, parce que ce terrain était dans un bail, de l'objet d'un bail, et pour euh, rendre durable ce travail, il a fallu que nous puissions transformer ce bail en titre foncier, ce qui euh, achèvera ce travail. उसके बाद उसको सिलेक्ट daal waaw sant yàlla rek sant ko gërëm ko ci mbaax bi ñu defal ñu mën a mottali yéene kilifa yi amoon nañ yéene waaye ku ne xam na ni liggéey liggéeyu lislaam liggéeyu diine dafa dafa diis kon nag buñ ko bàyyi rek taalibe yi ak mbokk yi kon amoon na mu yàgg lool moo waral fii depuis 62

ci Njaasaan ci Laayeen daf ko Léona Ñaseen daf ko Medina Baay daf ko Kolda juma jafe nekk tey ak juma bu Tamba waaye fas yéene itam ci Ndar am na juma ju ñuy ak ay juma Kédougou bu ma fas yéene def ak bu Kaolack ak Mbuur loolu yëpp ak juma Cheikh Omarul Foutiou fii ci Ndakaaru bokk na ci liggéey bi ñu def ci cité boobu kon euh, dañuy sant yàlla bu baax ndax état bi Kopa ngir koy fa jaar samedi di ñëw pour xool fu liggéey bi toll ndax euh, maanaam église bi tam am nañu ay liggéey si diocèse yi si juróom-ñaari diocèse yi ak aussi si surtout Kopa ak ni ñu jota defaraat cathédral bu ndar loolu yëpp bokk na ci programme bi man daal jërëjëf gundo ceerno ceerno hamid yero ban eɗen nganndi kala mbiɗo ceerno hamid yero ban kam indi inni diine l'islam ɗum noon ceerno hannde eɗen gonndu e ñalawma teddi woni ñalawma aljuma ina hawre udditgol juma mo ngannduɗaa ko e juma bop ina ɗaadi ceerno alhaji mouhamadou seydou ba mo ngannd to madini gunas ɗum noon ceerno ami jiide tan konngol ma holno jiiruɗa ñalawma o e hol duwa mo mbaɗata tigue winnder e leydi sénégal ndi e han euh, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa baracatuhu banndiraaɓe on calminaama on njuuraama on njettaama kadi on njaarnaama uh, eh, alhamdulillahi ñalawma hannde o ko ñalawma teddungal l'islam ko ñalawma teddungal sénégal fof kono noon ko ñalawma teddungal farigatu tijaniya haa teeŋti e fuutankooɓe hannde machallahu tabarakallah ceerno men ceerno ahmad tidiani ba gardiɗo dental madina gunas khalifa moƴƴo khalifa jaaruɗo jam jam khalifa jurum ndeero khalifa teyɗo kanko e denndaangal dental ngal fof hannde eɓe mbeltii no feewi julɓe arɓe ɓe kadi kadi men fof kadi ene belti ene ndendi kadi machallahu e makko ene getta allah e ngal ɗo gollal e ngal ɗo gollal ngal ngannduɗaa ko duwaw jaabaaɗo duwinoo ɗum ko jinnaaɗo makko ceerno men ceerno alhaji mouhamadou saïd ba rahmatullahi aleyhi kono noon allah waɗi gollal ngal ko hannde timmi jowa wali allah noon buntata te walata ladde teddungal kadi alhamdoulillahi rabbil alamin ruttima e juuɗe président de la république makkisal mo ngannduɗa golle muɗum ene jooɗi e hono ɗiɗo fannuji kala galle diina mo jaaɗa ma taw toon junngo makko e ngal ɗo gollal eyi ɗum noon eɗen jetta allah e ɗum eɗen ñaago allah subahanahu wa taala oɗo juma mo yimɓe juuli ɗo yo allah jaɓanemo ɗum jaɓana denndaangal juɓɓe kala waɗa jam e leydi ndi waɗa jam e denndaangal leyɗele juɓɓe fof kono no ceerno men giɗo meɗen ceerno ibnu omar ceerno mo ngannduɗaa kanumum hannde juulni e hutba makko mo hutbini e hutba mo cheikh omar radiallahu taala anhu waɗno ɗum segu 1861 o wii allahumma jaal biladana min hayril bilad o wii yo allah waɗ leydi min ndi wona leydi ɓurndi e kala leyɗeele to baŋnge ngalu e to baŋnge dañal e to baŋnge deejre e to baŋnge fof ويجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد ويا ليدي دي كليدي جوجي دي سيكوريتي ليدي جوجي دي اسيورانس ليدي جوجي دي كيوتيد ها الى يوم القيامه اللهم ارضع اللهم ارضع عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد وي كلا جوجي دو بوناند جيدان دو ليدي سنغال ولا جيدان ليدي جولبه يو الله رتلو ميدن يو جومون يا ها لورتا هاي غوت نون خطبه خياري ها او غينوي وي اللهم انصر اللهم, اللهم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 ɗum noon hannde ceerno min naanuma tan holi yiyande ma hannde e ñalawma o e hol duwa mo mbatta inchallah so allah jaɓi e alhamdulillah rabbil alamin ceerno djiby o jarama uh, safina tv alhamdulillah rabbil alamin onon o jarama contribution moɗon e ñalawma o yiyama e foof koye ballal ceerno men jinnaɗo men ceerno men ceerno hamid yero ɓan mo ganduɗa kanko jeeyi gollorɗe ɗe e yiyande amen hannde e ñalawma o ko yiyande yettude allah nde wonno ko hunde ɓoynode soynede ko hunde ɓoynode jottorede ko hannde allah newni e moƴƴere allah ene laaɗo muɗum sababuji noon allah ene rewni ɗum e juuɗe mawɗo leydi o son excellence hono monsieur président macky sall eɗen julɓeɓe fof ene belti tidianiyankoɓe fof ene belti haymo wona tidianiyanko ɓay son wi julɓe tan ummal islam o fof ene welti saabu ko hunde ɓoynode soynede ko hunde ɓoynode faɗanede eɗen gandi juma biyaɗo mbaɗaɗo posa premier prière 1982 euh, aɗa sowɗama inégré hande eyyi ɗum noon 1962 ɗum ko ndende daña kono nde fa tufre faw ada fawede e yamiro cheikh alhaji abdoul asis caggal nde ceerno mawɗo cheikh alhaji abdoul asis ceerno eh, mawɗo cheikh alhaji mouhamadou saidi radiallahu taala anu yalti aduna 1980 duuɓi ɗiɗi pawi hen 1982 ko nden nodda noddagu e yamirore e mawɗo cheikh alhaji abdoul asis dabbar premier hayre fawaɗo kanko e julɓe wonnoɓe ɗo foof e ceerno men ceerno hamdoul mansour baro en ceerno mountaga ahmad ceerno mountaga tal en e denndaangal halifaɓe dinɗo ɓawno wonde ɓe noddi ɓe ngari ɗo ene ko nden hayre nde adi faweede kanko cheikh alhaji abdoul asis kanko adi yaltinde 100 mille franc e on saaha o yalti ujunnaji nogas o wi ko kanko waɗi fuɗɗode makko heddiɓe kadi kasali goo fof ñemmi noon noon noon ene yaha golle ɗe noon ene darto e hakkudere nde golle ɗe darti ha e raɓɓiɗinde tan 2017 ko nden alhaji makisal heɓɓiti golle ɗe e yamirore ceerno e yamirore dental ngal jokkidde golle ɗe ɗum noon wadde alhamdoulillahi rabbil alamin so golle de ngari ha do enen dum ko kala biyo wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah adi yo horema e gollal ngal ɗo nde wonno l'islam kala bangi do beydori an jullo adatina don horema da a wiata be do ko guna senkobe ko ɓesgu cheikh alhadim ala a wiata be do ko ko umar yankobe a wiata ɓe ala enen fof enen dendi ko buri mawnude ko beydi allah wino en ko innamal muminuna ikhwatun ton buri forde e tijjani yankagal ngal toon ɓuuri forde e umar yankagal ngal toon ɓuuri forde e guna senkagal buri forde e mouridisme e ko nandi hen ko allah non ko teskade dum buri mumno dum wadi enen fof hande ko dum teskiɗen dum wadi jogli l'islam di fof jogli aduna o fof ha états unis asie amérique europe tout partout dans la monde ala to neɗɗo ummoraki sabu arde tawtorede uddital ngal ɗo juma gonga non ko uddital sabu teddinde makkesal kono cierno cheikh hadji mohammed saïd radiallahu taala no nde o juma o ko nden o wi o udditi woni jama woni juma guila nden no ɓami ko juulede ɗum noon o ɓayri ko teddugal mawɗo leydi waɗanima golle baaɗe ni so fal force kankone omo yiiɗi ñalawma mo ganduɗa caabi ɗi o caabi ɗi o aadodirno e ceerno o adda o waɗa ɗum e juuɗe ceerno ɗum waɗi nande trés heure nde caabi ɗi gadda mbaɗa e juuɗe ceerno ɗum waɗi juma o uddita julɓe ɓe belti hen ɗum noon eɗen duwanoma kanko mawɗo leydi ndi dendagal wallidiɓe makko foof kamɓe foof eɓe duwanoɓe yo allah walluɓe yo allah renɓe yo allah suurɓe ceerno kadi ceerno ahmad tidiani yo allah ɗaccumo ɗo ko juuti ɓooyden juuldude e makko e suudu allah nudo khalifa be meden diine notitinoɓe kadi noddango go de wona noddago ngo ko noddago allah istajibu lillahi wali rasul hono no gandirden kambe pop noti ko allah be notaki no sababu ko tan Allah be noti ko allah e mudum sabu e be gandi so be gari ɗo henen goto foof gelal gal joginda allah e nelaɗo mun ko kanyum ko tawta do ɗo henen ɗum noon eɗen ñagonoɓe kambe pop be bayi ummorade e leydi ndi ɗoɓe mbawi ummorade e afrique ɗo mbawi ummorade e europe o ɗo mbawi ummorade aduna ɗo goto foof yo allah aynu ɗum reena ɗum haaɓe koto e dow jaam eɗen kisti saabu barke allah e nana ɗum sallah alayhi wa sallam sikki ala kadi ɗo e lewru eɗen tejjini ko wiyete daka madina gounas ɗum waɗi julɓe fof kadi ne dokke rendez vous inchallahu taala toon to madina gounas safina tv on jarama e gardogol jinnaɗo men ceerno men ceerno hamidou yero ɓen wama dalika alallahi be asisin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ceerno djiby jarama seydi ndongo machallah yiyande makko waɗi fayida eɗen gandi o arti guilande jama o fawa hayre e hebnoɓe tawede eɓe keeɓani tawede e jonitode oɗo cheikh oumar inchallah kañumne mo ganduɗa makkisal ƴettiti junggo mum caabi ɗi joni joni o oɗo mi hokka tan seeɗa yiyande waji ɓe garta wonmo ganduɗa poɗɗen wadde introsé won faɓɓe men eɗen mbaɗi signalé dokkenɓe seeɗa tan garten haade men artude hen seeɗa eyi الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جت نقولني الله قبل تارن توتر قدو جمع نودت يدي كدي الهاز مكسل يدي كدي كير ما كير أما تجربة ما جي كناس يرو الله وانا ما كجم وانا ما جم إن كلا كه كه كدي توتر جمع كير كجتين يا بارك الله يزيد جارم جارم أنا بعرف مين إشهاق صارو إشهاق صارو جمال إشهاق ما شاء الله هل جينا ما min koko sara kulliɗen mi haalata ko sara kul eyi tigi hannde eɗen gandi julɓe fof nanndi ɗo machallah so wiyama julɓe ala o ko haalpulaɗo ala o haydara ɗum yiyanma hannde ñalawma tan eɗen eyi assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh si laamini jama wala su kuuñi mbaano so anga taako nokku ɓe anga nokku su wala n kuuñi tan togonɗan jammu on boppu juma ña lenki ke juma a taako gilli 1960 quelque a taako keña ha to 81 ka ato fa fana nan taw 81 yani ato fana nga taw lenki am to ko no su aga mani ke juba fori nawt gillis gelle gelle arbun jamanu nalle amerikini nalle senegali yimme am to sere wo sere anga mani ke juma sere ka su ke juma lenki anda takki kita allah nokku ala mamma seydu ajabi sere su ganani ke bopu angana salle angana salle boppu juma angana salle boppu juma ke allah takke kita mallaga yam pamma tanna fon nan sala gonna kallanka ko de nyalam hande teddudo ko mustafa ba mbitemi jeyami ko diwan kusanar do wiite dane e so wona nyalawma hande ko nyalawma weltade wonande o oɗo ñalawma kala julɗo ɗo wawi wonde he aduna he fof i welti saabu hande allah waɗani en ɓuɗbu jamanu ko ceerno men hande en mbi omo welti wedde weltare mum nde nafat aduna o foof wona leydi ndi weltare ceerno nafat aduna o foof e, e, e nafat pertidan nafat laamaɓe he laamiɓe foof e ɗum ɗon ko yettere allah minen belti minen beltani onon saabu onon ne darde mon nde darde moƴƴere ko yidde yo ko yettere allah nde tawno neɗɗo kala mo yettani allah kadi yettani sababu wawata yettude allah eɗen jetta allah ko ñalawma weltare eɗen jettira allah ceerno meɗen ceerno men ceerno alhaji ahmad tidiani ba eɗen jettira allah kadi président de la république jeeɗo kadi timmorde ngal ɗo golla eɗen jettira dendagal julɓe arɓe ɗo ɓe foof eɗen jettiraɓe allah eɗen jettanaɓe allah ko weltare nde ganduɗa ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi no ceerno men wiyata ni tan ko weltare tan kadi golle moon kadi yiyama onon médiaji ɗi fo machallah e sécurité e dendagal kala ko ɓiɗɗo julɗo ene sohlatno e dental he fof allah newni fof julɓe fof jettama ko alda e ko weltare tan tey gis nañu seen teewaay fii si inauguration mosquée bu mag bi léegi ñu bëggoon xam euh, seen gis-gis ak tey journée bi lu mu mel seen point de vue tamit waaw alhamdulilah euh, bëggoon naa nag mën lakk ma ma lakk leen pulaar waaye yàlla def na comme soriwuma ci lool damay wax rek ne tey daal bisu mbégte la lool nag ndax bi jàkk ji naa leeg léegi am na ñu fi jaar xëy na fekk nañ tàmbali ba fekk wuñ tey jeexantal bi bañ du koy inauguré yàlla baax nag fekk la ci réew mi may la wér gu yaram nga sol saw dala dox ba ñëw fi loolu jar naa sant yàlla baax a baax jumaa ji ko gis xam ne masjid mumtaz fi mu nekk dafa mel ni dañ ko xaaroon pour mu nekk fi li président wax léegi ne këyit yi koy toppatoo léegi dana jóge ci bàyyi dem ci titre foncier loolu itam du lu tuuti lu mag a mag la te baax kon nag noo ngi ñaan li fi nekk ci teraanga ak sutura ak barke lépp yàlla na ñu topp ñun ñëpp liñ fi ñaan ñun ñëpp te muy nekk barab bu ñaanukaay yàlla na borom bi nangu ñaan yëpp. Oustaz gis nañu réewum bii dafa yëngu tuuti léegi ban waaw ngay ñaanal réew mi jàmm mooy rek incha allah ñaan yi ñu fi dégg daal dal nam xel ñaan yi ñu fi dégg dal nam xel te mbooloo mu mel nii daje fu mel nii ñëpp ñëw ak xol yu sedd. ñëw ak xol yu set ñëw ak yëru yu set jooxe juma yaakaar naa luñ fi ñaan dana nangu ba tax ñaan yi am nañ ci yaakaar lool jërëjëf. bandiraɓe sukaɓe sutoɓe safina euh, safina tv machallah eɗen ɗo hannde e euh, boppo kuɗitgol juma euh, alaji mo seyko machallah en mbiɗen tan ngal en mbi machallah no yeɗɗe leldi avec moom organisation pas extraordinaire pour ñu weekend ndax macha allah impadat déroché à la reine rew ɓe ko oga bangue warɓe ko oga bangue en garat noon keɓɗe numbiraɓe ɓe ganduɗaɓe e mbaɗi déplacement arde ɗum hannde rendude bandiraɓe oɗo ñalawma e ɗum noon mbaato nde hakkil salamu aleykum aleykum salam ɗar kalse wona ko wolof kalse wolof dañi wa waaw ko wiyete ko rennduɓe beccet fekk toujours yaay machallah yaɓo sànce ba mu rafet macha allah ñu waral tey teewaay bi fii maa ngi nuyu ñëpp maa ngi lay fay accompagné euh, madame Aminata Maïda Sow déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale moo dëkk ci kër gii famille am waa kër Thierno Maïda Sow ñooy teeru tey président sama leader. Aminata Sow koo xamante ni diine rek moo ko ñor. Uh-huh. islam rek moo ko ñor. tey sax daf moom dara ñu jëm ci neneen ñi rek. macha allah kon nag tey kontaan nañu parce que vraiment lii dafa nekk une première. ndax président Macky Sall toll mi ngi inauguré. Uh-huh. donc muy inauguré lu toll nii mosquée bii. waxtaan ak ñëw taxaw ñëw taxaw pour mën a teew ñu xam ne tey macha allah bëtu mbégte la. bëtu ñaan la bëtu ñaan nangu ñaan waaw lan ngay ñaanal Sénégal. li may ñaanal Sénégal mooy euh, dañoo doyalul ci président man loolu mooy Sénégal mu tàmbali teewaat ko déwén yu bëri yàlla may ñu ñëpp fan yu gudd ak wér defal ñu sutura defal ñu teraanga